rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias mbokkee xarit ñu seetaan benn waxtu jot na xibaar diggu bëccëg yi li ci gën a fës ñi caabi féete ginnaaw ci kaso bu rëbës di wéyal seen xiifal di naqarlu nag ñi nga xamante ne noonee la ñu yàggee ca prison ba te kenn waxul ci seen ay mbir union des magistrats bu Sénégal di kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb magistrats yi moom mag nee na li waral longue détention préventive yi moo di ne Sénégal dafa dal bëriwul ay magistrats rax ci dolli itam jàpp nañ ne dañoo war a jëfee nu mu gën a gaawee code de procédure pénale bi nga xamante ne day yemale ci ñetti at rek détention criminelle maire yu euh, Pikine ak euh, Tëngéej ci ñoom ne ànd nañ ci niñ fi jëlee entente Kadakar jël mbalit mi euh, dénk ko waa UCG Abdoulaye Cimbo ak Daouda Niang ne dinañu fexe ba wàllu mbalit mi fépp ci Sénégal lu ci Dakar rek ñu daal di ko dénk UCG ndax jàpp nañ ne ñoom ñoo gën a mën boobule liggéey loole nag ñu ko xamlee ci ab atelier bu ñu doon amal tey ji ci suba fii ci Ndakaaru wàllu politique PDS di waajal ab rassemblement bu mag ëllëg ci àjjuma ji euh, ci seen buntu permanence euh, plan boobu boobule nag bokk ci xeex gi ñu sumb ngir rek fexe ba Modou Diagne Fada jóge ci seen bopp euh, groupe parlementaire bile waaye itam mu abal leen ci seen parti bi loole la Aïda Mbodj ak ñoñam bëgg wàllu terrorisme ak nit yu bëri yi nga xamante ne teg nañ leen loxo fii ci Sénégal ci fan yi ñu génn bokk na ci ñi ñi ñu teg loxo ñaari imam kenn ka bàyyeekoo ca Kaolack keneen ka ca Kolda amal daawaay itam ay soxna ca géejawaay ñoom nag dañoo njort ne daal dañoo laalee ak waa Boko araam wala bokk Al-Qaïda mu mel ne Sénégal dafa taxaw temm ngir rek xeex lépp lu jëm ci wàllu terrorisme loolee dinañ ci am gan eh, ci biir xibaar yi Mame Mactar géey bu ONG Jamra lay doon waxtaane wàllu terrorisme ak xeex gi nga xamante ne Sénégal eh, sumb na ko eh, fan yi loole ci njeexitalu xibaar yi lay doon li ci yéenekaay yi mooy ndar képp yi lay xibaar laata loolu bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce yi le mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaaru diggu ba ca gi ni ñu ko junjee euh, prisonnier ya nekk ca rëbës ñoom di wéyal seen xiifal naqarlu rek noonee nga xamante ne euh, la ñu nekkee ca kaso ndax jàpp nañ ne yàgg nañ fa euh, loolu waaye daal ba tey yoon waxul ci seen ay mbir te nee de moo de ñu ne bu doon ñeneen la ñu lijjanti bu yàgg ba tax na ñoom ñu ngi wéyal seen xiifal kuréel gi nga xamante ne nag moom moo ëmb magistrat yi ci Sénégal di UMS ñoom d'accord ci ak ñoom xamle nag ni li waral waral situation moo di ne Sénégal daal dafa amul ay magistrat yu doy waaye nguur gi li mu war a def ni mu gën a gaawee moo di fexe ba jëfe code de procédure bi nga xamante ne day yemale ci ñetti at donc détention euh, criminelle loolee ci ab ndaje bi ñu amaloon tey jii ci suba ñu teewlu ci Mame Birame Diouf. ci Sénégal kaso yi ñañ di fay dund dund bu waar ndax sax kaso yooyee mënul dalal ñëpp li tax nag ba nga xam ni prisonniers yi sax ñaareel la ñuy traité seen i dossier dina yéex lool waral ab grève ca prison bu rëbës. Euh, dund kaso lu metti la euh, boo leen rax ci dolli soo toogee lu yàgg ñu war la atte war la foo te waxuñu la ko ba léegi loolu metti na ci xol. détenu yëpp ñoo yem ci yoon euh, dossier yëpp lañu ñu war a traité. dossier yëpp la ñu war a fay daal def ci matukaay ba ci war pour que liggéey bi jaar yoon ñu bañ a am sikk sàkk bañ ki am xaw ma nag la moo tax dossier Bassirou Faye yegg si ba fii est-ce que yeneen dossiers yi dañu gën a compliqué wala est-ce que yeneen dossiers yi dafa am travail d'investigation bu juge bi war a def loolu vraiment duma ci mën a sori. mante am na réforme pénale boo xam ne ni bëgg na ñu dundi fii euh, lu ni mel rawatina ci lu soxal mbirum crime waaye ndogal gi ba léegi kenn jëfewu ko. ministre de la justice léegi ñoom mi ngi seen loxo parce que moom ak ministre de la justice ak le président de la république mi nga xam ne moom mooy nii la politique pénale au Sénégal ñoom ñoo ci des bu ñu demee ba xalaat ba nga xam ne tënk tënk li ñu war a tënk ba nga xam ne jeex na ñu soog koy jébbal assemblée nationale pour ñu mën a wote loi bi. li ñu proposé woon mooy ñu limiter mandat de dépôt bi à trois ans mooy képp koo xam ne dañu la topp ci jéey bi nga xam ne moom la ñuy wax crime bu fekkee yoon dafa la teg loxo. maanaam ñu placé la su mandat dépôt juge bi trois ans la am pour jeexal dossier bi su ko jeexalul bu trois ans yi jeexee yow dañu lay bàyyi. Sénégal lu weesu fukki million ak ñett ci doomu aadama di fi yeewoo 500 magistrats képp lañu am fi ci Dakar di cabinet d'instruction ñàkk jumtuwaay ak juge yu matt di andi ay jafe-jafe. nañu gën a fas jom rek nañu gën a góorgóorlu gën ko yokk te xam naa ne loolu dem leen di ñaax rek waaye xam naa ne ñu ngi ci. waaye liggéey bi moo bari mais toujours est-il que nañu gën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñi ngi ci kaso yi jumtuwaay yi mooy matuwaay yi nga xam ne juge yi greffier yi avocat yi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi wutu yoon dañu war a am matukaay matuwaay yooyu. président UMS de union des magistrats du Sénégal jàpp ni chambre criminelle yi bokk ci réforme yi nga xam ni sax taxawal nañ ko bu fekkee chambre yooyu nag dañu kaa doxalee ni mu war dina tax lii di longue détention préventive ñu jëlee ko fi. ni ngeen ko gisee ci reportage bi du ab ndaje bu waa UMS amaloon waaye Mame Birame Diouf ci boppam moo xëy sekk waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo jiite euh, boobule kuréel la ñu wax ci euh, maire euh, maire yu Pikine ak Tëngéej Abdoulaye Thimbo ak Daouda ñaa ñoom rafetlu bu baax a baax dogal gi nga xamante ne nguur gi jël na ko ne daf fi jëlee entente Kadakar dénk wàllu mbalit mi fii ci Ndakaaru ñii di waa UCG ñoom rafetlu nañ ko bu baax a baax te it ñu ne nguur gi waru faa yem képp waa wàllu mbalit mi ci Sénégal yëpp yépp lañ leen war a dénk bañ ko rek yemale euh, fii ci ndakaaru loolee nag ñu ne càpp décret lañ ko war a jaarale te bëgg nañu ñu amal ko dinañu xeex itam ngir loolee mën a antu yile kàddu nag Abdoulaye Cimbo ak Daouda Niang ñu ngi ko yëkkati ceeb atelier boo xamante ne tey waa UCG ci seen bopp ñoom ñoo ko amaloon ñu teewlu ci Alassane Ba ginnaaw seen ànd ak ndogal gu nguur gi maire yi di wax ne ñoom daañu fexe ba liggéey seen biir ngir collectivité locale yi yoraat gestion mbalit mi. yoon la gouvernement bi toog xoolaat parce que aussi li ñu bëgg rek mooy set gi fépp foo xamante ne ci biir région de Dakar la set gi yegg fa. parce que aussi c'est une responsabilité des collectivités locales parce que nit ñi bu fekkente ne mbalit mi bëri na du ñu wax ak kenn maire yi la ñuy waxal kon bëgg nañu ñun ci suñu bopp ñi nga xam ne ñoo nekk maire yi ñu war a mën a indi ay réponses ci loolu. li ñuy laaj rek mooy ñu bañ ko yemale ci gestion ministère nañu xam ne collectivités locales yi ñoom ñooy euh, ñoo ñi war a gérer. Euh, les déchets et que bu boobaa nañ ko delloo aussi collectivité locale yi su fekkee am na benn période transitoire boo xam ne UCG bi géré na fi mu nekk nii il faut ñu am période boo xam ne bii peut-être dinañ bàyyi euh, nguur gi mu géré loolu waaye ñaanuñu mu gudd parce que tamit euh, lu ñu moom la nañ ñu ko delloo ba ñu toogee ministre bi wax nañ ko ko nañ ko ne ñun d'accord nañ ci décision bi ngeen di jël yéen yéen a xam fu réew toll waaye ñun li ñu loi jox mooy nañ ñu ko delloo bu ñu ñu ngi suñu biir bu ñu waxtaanee suñu biir ba xam lan mooy euh, lay yi ñu war a teg ba pare xool bu ñu mënee dem ba proposé sax président euh, benn projet de décret boo xam ne bi ñun dañ ciy d'accord xanaa moom mooy am kàddu gu mujj gi. Abdoulaye Timbo di wax ne jotoon nañu alerté njiitalu entente bi mbir mi demee ba jéggi dayoo. bi ñu ñëwee ba toog nekk ay maire yu doog a falu. toog nañu ak diir ni Kadak doon fonctionner ñun xamuñu ci dara te ñu bokk ci comité bi nga xam ne moom mooy diriger Kadak bi ñu toogee lu mot ay fukki weer man ci sama bopp dama bind le président de la Kadak pour wax ko ne ko bëgg nañu xam Kadak ci lan la nekk parce que xamuñu ci dara gisuñu ci dara kenn woowuñu ci lenn amul benn rencontre bu nu initié alors que daanaka def nañu lu war a toll ci at. mais loolu war te mën a nekk ci ñoo xamante ne dañu war a ànd bokk loo xamante ne structure la boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko war a xool di ko saytu buñ ci xamul dara dafay commencé lëndëm. kenn mësuma oo ci réunion CAR kenn mësuma jox benn information ci problème CAR xaw ma ci dara ba fii may toog di wax ak yow nii xaw ma ci dara donc boobu loolu amee ñun ñoo gis ne ci biir Tëngéej salte baa ngi gën a bari maire Tëngéej yi nekk foofu muy maire est ñu daje ñu waxtaan ñu ne ah, bi daal ni muy demee fii xamuñu ko. waaw ah, donc dañuy jéem a xool naka dañu koy defaree. jële gi ñu jëlee yorinu mbalit mi ci entente Kadakar jox ko ñii di waa UCG ñenn ñi gis ne mbirum politique moo ko lal wante maire bi jàpp ne politique laxasu wu ci. non amul politique comme li ma wax euh, lettre bi ma leen di wax ni njëkkoon naa ko bind Khalifa Sall loolu ëpp na juróom benn weer kon ça veut dire tout simplement que amul politique bu nekk ci ginnaaw dañu am préoccupation wu rek xool bëgg am cet goo xamante ne gi dina mën a nekk ci suñu biir ville yi nga xam ne moom la ñuy jiite buñ ko ci gisul amuñu ci satisfaction c'est normal ñu wax. c'est normal que ñu ne nañu xool doxalin bi parce que gisuñu nañ ne dëkk bi ba léegi dafa tilim tilim googu nag mënut a wéy. gestionnaire bu yees bi di UCG di amal ab atelier de partage du projet d'éducation pour la promotion de pratique éco-responsables coordonnateur bi di wax ne du yëy yàbbi ci mbir mi ñu ko dénk donte sax maire yi fas yéene nañ ko gunge ci ab diir. Alassane Ba entente Kadakar ñoom mu ne fasuñu yéene daal banque seen yoxoo ci bile décision bi nga xamante ne nguur gi jël na ko ba tax na yóbbu nañ ko ca cour suprême loole nag maître Aboubacry Baro daal na ci àddu xamle na ni bu dee nguur gi dafa jël bile dogal ngir rek fexe ba gaaw génne askan wi ci jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko ci wàllu mbalit cour suprême mën na ko bañ a euh, niilal waaye leneen lu mu xamle itam moo di ne wàllu mbalit mi compétence la goo xamante ne collectivité locale yi ñoom ñoo ko euh, teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Baba tey. bu dul aussi ordonné loolu bu fekkente ne aussi loolu décision bi dafa intéressé ordre public ak sécurité nit ñi loolu et puis euh, beneen mbir am na aussi président moom bu urgence amee cas d'urgence euh, bu ko soxla aussi mu xam ne moo ëpp njëriñ askan bi mën na jël mesure euh, bu ko neex mais ak condition mesure boobu aussi aar intérêt wu askan bi. mais li ci am solo daal mooy cour suprême chambre administrative moom moo fi nekk moom yoon lay topp su fekkee acte bi jaar na yoon jaar na yoon jaar na yoon lu ci war a taxaw mais su fekkee aussi jaarul yoon moom da koy añuli te comme ni ma la ko waxee sànq collectivité locale moom rek moo am sañ-sañ euh, gérer ordure yi donc beneen structure à part collectivité locale amul sañ-sañ boobu donc euh, act boobu aussi mun nañu discuter. si légalité bi ak régularité bi te loolu aussi cour suprême chambre administrative moom rek moo am sañ pour pour annuler ko. président moom moo nekk autorité suprême mais dans un pays démocratique état de droit yoon moom mooy appliqué wu. nul n'est censé ignorer la loi. gis nañ ay pays démocratique yoo xamante ni seen président day jël ay décret euh, faisant grief ay intérêts nit ñu annuler décret yooyu. pourquoi pas aussi Sénégal parce que Sénégal aussi état de droit Alassane baa ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci waa parti démocratique sénégalais ñoom nag ñu ngay waajal ab rassemblement bu mag ni ki ci àjjuma ji euh, ci seen permanence bi loolee bokk ci plan bi nga xamante ne rek sumb nañ ko ngir xeex euh, Modou Diagne Fada mu jóge ci seen bopp groupe parlementaire bi waaye mu fexe itam ba abal leen ci seen biir euh, parti bile loolee la Aïda Mbodj ak ñoñam bëgg ba tax na ñu ne nag wàllu autorisation moom ñu am ko ñu ñàkk ko am ko amal ci seen buntu permanence boobu les rassemblement ëllëg ñu ngi xam ne nag ci ab comité bi ñu doon amal niki àllarba gi ñu teewlu ci Pape Fara Gningue Younous Diatta cadre de concertation de l'opposition ñoom ku jéggi nag nee nañ dañuy woote woote bu mag ngir mën a jaamaarloog nguur gi. comité directeur aussi informé na bépp membre parti bi ak structure parti bi que ni ajuma bi su takkusaan jotee. Euh, li ñuy wax cadre de concertation de l'opposition am nañu daje bu am solo fii ci parti bi euh, te leader yi ñoo koy jiite bépp fédération wu parti bi pour que ci nu mu gën a gaawee ñu rappeler les troupes pour préparer mobiliser parti bi pour ñu continuer li nga xam ne nii mooy cëru parti démocratique sénégalais garantir liberté individuelle ak collective yi ci réew mi jouer suñu rôle ci démocratie ñu assumer ko pleinement Aïda Mbodj moom moo nekk njiitu groupe parlementaire libéraux et démocrates te sas nañ ko mu woyal xeex bi ci assemblée nationale. groupe parlementaire bi nga xam ne nii suñu jigéen ay Mbodj moo ko jiite mu continuer xeex bi nga xam ne nii door nañ ko assemblée nationale pour delloo dëgg ci réew mi li nga xam ne nii suñu àq ak suñu yelleef la ñu jël ko. réew mi d'accord nañu ne li xew assemblée nationale teguwul ci yoon teguwul ci dëgg kon nag te yoon may nañu ñu jël lépp lu nga xam ne ni pexe la ak xalaat pour def ko wut yoon jaar fa delloo dëgg ci yoonam. lu ñeewal ñeneen ñi nga xam ne ñooy fippu ànd ak Modou Diagne Fada seen mbir ñi ko war a saytu dinañ ci toog comité directeur bu parti démocratique sénégalais daan nañuy félicité nag ki nga xam ne moo nekk président Alassane man Ouattara ci ndam li mu am. sanction bi xam nga du comité directeur moo koy jël instance parti bi. jël nañ question bi en charge et je pense que lépp lu luñ ci war a mënta jël muy ndogal dinañ leen woo ñu wax leen ko. comité directeur bu parti démocratique sénégalais daan nañuy félicité nag ki nga xam ne moo nekk président Alassane Dramane Ouattara ci ndam li mu am ci jongante njiitu réew ya am foofu ca Côte Pape Farah ngi la xew ci assemblée nationale waaye itam classement bu FMI mi xam le ni Sénégal bokk na ci ñaar fukki réew ak juróom yu gën a ndóol ci àdduna bi doon na ay question d' actualité yoo xamante ne Coumba Gawlo Seck waxtaanee na ko ci ab conférence de presse euh, bi mu doon euh, amal loole euh, ci ñaar fukki at ak juróom yoo xamante ne moom def na ko ci musique artiste bi xam le ne jamono ji daal li xew ci réew mi lu muy lu di sàkku ci nit ñi rawatina ci député ya nekk ci assemblée nationale ñu delloo si xel yi te xam ne askan wala ñu fa teewal ñu teewlu ci. ci Pape Farah Gningue Kumba ci bi muy dajeek taskatu xibaar yi ci ñaar fukki at ak juróom yi nga xam ne mu ngi ko def ci wàllu way nee na nanguwul li FMI wax ne Sénégal moo nekk ñaar fukk ak juróomeeli dëkk bi nga xam ne moo gën a ndóol ci àdduna bi. Euh, réew moo xam ne ñi fa nekk du ñu ay ay yaafus yoo xamante ne ni dañuy di nelaw ba seen réew di dellu gannaaw euh, ci mbirum koom-koom euh, donc ba tax na loolu vraiment nekk na loo xamante nii. Euh, man gënaluma te it euh, xaw na quand même am ci am naa ci sikki sàkk mais bu sikki sàkk bi wéyee am naa ci it euh, ak jàq lool ndax mën na tax su ñi nga xamante ni ñoo ñëw bëgg am lu ñu doxal ci sunum réew lu mel ni investissement wala dara dellu gannaaw ba duñu ñëw ndax dafay nekk loo xam ne du rafetal gis-gisum am réew rawatina réew mu mel ni Sénégal daal waaye nanu fexe rek suñu ñun waa Sénégal gën a góorgóorloo ba image boobu ñu ñu jox rek nekk loo xam ne nañ ci génn ci nu mu gën a gaawee pour mën a dem ci beneen euh, beneen cap. yoreenu mbalit mi fii ci réew mi naqari ko lool nee na li nu mel dafa yàqar kanamu Sénégal. maanaam jëmmu Sénégal ci mbirum mbalit mi nga xam ne nii mi ngi taxawaalu fu nekk loolu moom du image boo xam ne rafet na ci Sénégal ndax xam nga mbalit dafa nekk loo xamante ni nii dañu ne baleel nga génne soo balee mbalit nga génne ko ça veut dire yow mu nekk sa kër mais bu fekkee yow déjà nekkul ci sa kër ba muy ay pères de famille ñu garder seen dignité euh, garder seen euh, seen euh, seen ngor pour bañ a tëdd nelaw ni lañu liggéey liggéey pour tuur mbalit mi ba pare ña leen war a fay fayuñu leen ba ñu ca yegg si naan ñoom dañuy grève bàyyi dëkk bi mu am ay tilim yoo xamante ni rafetul ci image Sénégal defe naa ni boobu loolu nekk na loo xamante ni nii vraiment lu doy waar suñu réew la. artiste bii nag di ñaaw ñaawlu gone yi ni ñuy màngaane di dem ci biti réew ne dafay gën a yokk. ñooy dem di def lii ñu naan immigration man dama leen di woo rek pour ñu gën a gëm seen réew ñu gën a góorgóorlu ci Sénégal xam ne Sénégal réew mu naat la réew la moo xamante ni nii euh, boo liggéeyee mën nga fi am sa teraanga. la ngay dem di jariñ feneen foo xam ne doo fa am jàmm te tey boo dee woon foofu sa réew lañ lay indi jariñal sam réew ndax tey tool yaa ngi fi mën nañ ko bay xale boo wax bayal ci tooyul danaan man lu tax nga naan ma bayal pourtant la terre mooy li nga xamante ni nii mooy meilleur investissement man mii ngeen gis am naa ay tool lu ñeewal nag xiifool bi nga xam ne ñii di prisonnier ñu ngi koy def ci rëbës Kumba Gawlo Seck di ñaan ñu gën a xool seen nekkin Pape Fara Gning euh, conférence de presse boobu ni nga ko waxee mu ngi ko doon amal ngir rek euh, tiré ab bilan ci ñaar fukki at ak juróom yi nga xamante ne def na ko ci musique moom artiste bi nag nee na ab bilan bu positif la ndax jàpp na ni dugal na loxoom bu baax a baax ci li nga xamante ne noonee la bi di Sénégal di doxee ñu teew looy kàddoom nañ fi euh, ci sama bilan quart de siècle Eh, bi nga xamante ne nii moom laa def maanaam ñaar fukki at ak juróom yi nga xam ni def naa ko ci musique mën naa ni eh, sama eh, ñaar fukki at ak yi ma def musique moom sant yàlla rek ndax xam nga boo defee métier ñaar fukki at ak juróom ah kon mën naa ni lu bëri dund nga ko ci lu bëri gis nga ko ci lu bëri xam nga ko ci ah ndax bi ma jógee Sénégal bi nga ko fetee dem Paris yàlla may nañu public bi ak fan si wuyu suñu fekk suñu fa ñu am ci ndam li nga xam ne moom lañ doon wut kon expérience bi ma ci jëlee ak public bi ma ci am ak fans yi ma ci am yooyu yëpp maa ngi ciy sant bu baax Sénégal ci sant fans yi kon mun naa ni daal maanaam jàngat bi ma ci am jàngat bu bu bu baax la tey di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre di bés bi ñu jagleel ci àdduna wërngal képp xeex feebar bi di AVC accident vasculaire cérébral doon na ab feebar boo xamante ne lu muy lor ci àdduna bi bëri na lool Sénégal itam desu ci euh, ginnaaw li ñu jàpp ne nag ne moom moo koy joxe bokk na ci di faratal di lekk lu niin waaye itam lu bëri xorom lool naka noonu itam suukar ba tax na docteur yi di sàkku nit ñi ñu xoolaat daal bu baax baax Euh, seen alimentation maanaam ni ñuy euh, lekkee feebar boobu le nag ni mu mën a def ci yaramu doomu aadama ak fu mu la mën a jëmee ki ñuy gën a xam xamleeg moom di Fatou Kiné Deme accident vasculaire cérébral xeetu feebar bi mën naa jàpp tout tànk yi waaye nag ñi mu gën a yàpp mooy mag ñi ak ñi nga xamante ne làkk nañu juróom-benn fukki at jëm kaw xeetu feebar bi nag ñu jàpp ni hémorragie moo koy faral di gën a indi loole sax nag di jóge ci cerveau ñu xamee ko ci bopp nit na muy manifester nag léeg-léeg bu attaqué cerveau bi dañuy gis ni ñu ca bari pour ñu dund ci dina xaw a jafe léeg-léeg sax mu bàyyi leen ay njeexital yoo xamante ne foo ko natt weesu na ko lu mel ni yenn ci cëru yaram bi dafay bañ nit ki tamit bu ñu seetloo ngir mu wax dafay jafe ndax làmmiñ ba day damm li ñu jàpp nag ni moom moo yombal feebar yi bokk na ci hypertension artérielle diabète ñi nga xamante ne ni dañoo am yaram ba mu ëpp graisse gu bari toog defoo dara wala sax ñàkk a def tàggat yaram ma loolee nag tax na sax ba ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci feebar bi ñuy sàkku askan wi ñu soppi doxalin rawatina anam yi ñuy lekkee di lekk nag loo xamante ni du niin mbatt du bari xorom wala suukar sa du ëpp bu weesoo loolu itam sàkku nañu ci ñi nga xamante ni nii njoxtu nañu ni dañoo am AVC ñu gaaw yóbbu leen ci kër docteur wala boog ñu woote ci ab numéro boo xamante ne doo ca fay dara numéro vert boobee nag ñu gën ko xam eh, ci 15 15 bu service d'assistance médicale d'urgence yi ñu duppee AVC bokk na ci feebar yi nga xamante ne nii li muy faat ci doomu aadama bari na ci àdduna bi bi ñu ko xayma Sénégal nag mënuñoo wax ne mucc na ci jàngoro yi. Fatou Kiné Deme ñu koy jaajëfal bu baax a baax ni ma ko waxee woon ci bopp xibaar yi wàllu terrorisme itam dinañ ko waxtaanee ndax seetlu. seetlu ne jamono ji li ñu teg ci ay nit ci ay doomi aadama fii ci Sénégal bëri na bokk na ci ay imaam yoo xamante ne kenn ka ca Kaolack keneen ka ca Kolda ñu indi leen fii euh, ca section de recherche bu Colobane ndax dañu leen dañoo njort ne dañoo laale ak Boko araam ak itam waa Al-Qaïda ni ma ko waxee woon itam suñu gan maître euh, wala bokk Mame Matar Gueye vice-président bu ONG Jamra teew na ci plateau bi sëñ bi Gueye maa leen di Mhm. naka nga jàngatee arrestation yu yu bëri yi jëm ci wàllu xeex terrorisme. waaw xam nga jàngoro boo ko bëggee saafara dangay fexe ba ndar képp ko ba noppi doog a seet saafara bi nga xam ne moom la yellool ndax l'islam bi nga xam ne téeméer booy jël ci sénégalais yi juróom-ñeent fukki ak juróom mooy seen sukkandikukaay dàq na bépp xeetu buntu xataal tuur deretu ay innocent maanaam ñu tuddee ko tey terrorisme lislaam dàq na ko. lislaam dàq na itam la terrorisme intellectuel bi nga xam ne moom mooy jur terrorisme bi ñuy dund tey ndax am na lu fi weesu yàggul boo xam ne bi ubbi na suñu bët wan ñu ne terrorisme bi ci wet yëpp la te benn baaxu ci ndax bi Salman Rushdie di génnee téereem boobu en 88 di ñàkkee teggin Seydina Mohamed tuddee ko les versets sataniques jàpp alxuraan bi jalgati ko yàq ko terrorisme la c'est du terrorisme intellectuel adduna bi yëngatu amoon na ba kenn yu par la faute de Salman Rushdie ba ñu demee ba 2005 caricaturiste danois boobu ñuy wax Kurt Watergate daa di jàpp ngën ji mbindeef di ko nataal ci melokaan yoo xam ne teggin mayewul sax ñu di ko répété fii c'est du terrorisme ba ñu demee ba 2011 Terry Jones di benn pasteur protestant bi ñuy célébrer les 10 ans des attentats du 11 septembre foofu ci euh, Ground Zero mooy fii tuur yi nekkoon ba officielle yi pare seeni cérémonie officielle dafa indi benn téere alxuraan ne daf ciy sotti essence taal ko pour wane naqaram ci attentat yi amoon 11 septembre 2001 waaye président à États-Unis euh, Obama dafa mujj sukkati ko saraxu ne bu mu ko taal ndax boo lakkee téere alxuraan bi àdduna na takk te itam yalwaan ko rek la mënoon ndax xam nga la premier amendement de la constitution américaine tere chef d'état ak autorité bu mu mën a doon waaye américain bu bëgg a exprimer wu librement ci wàllu liberté de presse wala liberté d'opinion dañu mujj daal di ko neexal di ko dàmp di ko dàmp ba téere ba tàkkul c'est c'est une forme de terrorisme ba bi ci mujje muy 2012 bii Sam Bézil téere boobu mu génnoon euh, film bi mu génnoon Innocence of Muslim di considere lislaam comme un cancer adduna bi yëngatu un milliard six cent cinquante millions de musulmans am na xar am na ay dëkk yu mel ni Pakistan ak Inde dafa mujj dégg dayu ay bakken rot ba fii ci Libye ambassadeur ba fa toogal États-Unis ambassadeur Christopher dafa mujj faatu Jamra daal di mujj def délégation Imam Massamba Diop jiite ko ñu jël benn lettre de protestation ak benn lettre njaal dem fii ci ambassade États-Unis Sénégal nee ko bii ñu ngi protester contre ce film qui attaque l'islam lettre bi njaal la ñu ngi lay jaale ambassadeur ba bakkanam rot ca Benghazi parce que jàpp nañ ne terrorisme benn baaxu ci l'islam contre la violence sous toutes ses formes kon nag bu ñuy saafara jàngoro nañu ko ndar te bañ a weng di ko fajee benn boor terrorisme yi intolerance bi benn baaxul ci muy bii xew tey extrémisme musulman muy euh, fondamentalisme musulman tey tuur ay bakkanu innocent baaxul bala itam di l'intégrisme laïque au nom de la liberté d'expression ñuy attaquer beneen diine itam baaxul te yooyu yëpp dafa safaanoo ak suñu diine ndax sëy Seydina Mohamed ci boppam ba mu sampee la cité état de Médine xam nga boobu fekk na jihaad yu bari jeex na ba lislaam taxaw waaye dafa joxe ndigal ne anciens prisonniers de guerre yi ak ñi nga xam ne nangu nanguwuñu tuub bu leen kenn laal na ngeen leen bàyyi ñu utal leen benn no man's land ut seen territoire bopp ñuy fay impôt comme ñëpp am les mêmes droit que les citoyens kon moom moo jëkk a lancé appel à la tolérance te dafa dëggal li alxuraan wax. boo demee ci sóoratul euh, baqara suñu borom subaanu wa taala nee na bu leen forcer kenn mu dugg ci diina ji nee na laa iqra fi diin même ñi jot a dugg sax bu leen leen buntu xatal ndax man lépp laa yombal nga dem ci sóoratul mahida le plateau servi la table servie mu ne leen man ni may jàppee jaam yi gën ci jaam yi mooy jaam yi nga xam ne ñu ngay joŋonte ci gën a rafet gën a rafet euh, ay jëf yu yiw nee na foofu laa leen di natte kon nag l'islam est contre la violence sous toutes ses waaye bu ñuy bu ñuy xeex terrorisme li xew Sénégal surtout ak imam yi nga xamante ne teg nañ leen loxo ca Kaolack ak euh, Kolda. waaw waa li xew Sénégal ñun euh, kàddu gi ci ciy yëkkati mooy ñu ñaan autorité yi ñu gérer ko avec sagesse te ñu moytu di toppandoo ni américains yi di gérer la terrorisme xam nañ ne échoué nañu gis nañu Guantanamo scandale yi fa am am na ñu fa tëj. des années après ñu doog a gis ne ay ay innocent lañu. dem nañ ba gis ne FBI ak CIA excès de zèle ba ñu doon def jàpp nañu ay borom sikkim ndax sa sikkim dafa gudd rek jàpp la tëj la. kon yow ragal nga ak ñi ñu jàpp tey ñu. def ci ni ñu jàpp. Mhm. ñun li ñuy suggérer état bi na koy def gere ko à la parce que mhm. ñun yàlla may nañu ay ressort ci wàllu euh, tolérance. Mhm. ci wàllu ouverture yoo xam ne. ñu ñu baax ñett de Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba ñaseen Medina Baye Layène famille omarienne ñoo ko suuxat ci dënn ak ci ruu askan wi. Mm. nañu jëfandikoo ressort yooyu pour xool ni ñu mën a gérer terrorisme te man am naa yaakaar ne sax exception sénégalaise bi ñun dañu war a fexe sax ba exporter ko waaye nañu moytu di toppandoo. puissance occidentale yi ni ñuy xeexee terrorisme. mais euh, xutba yu métti yu tàng yi léegi léeg parce que ñaari imaam yooyu yëpp euh, bokk na ci li ñu leen tegee loxo loolu ndax dañoo jàpp ne ni ñu daan xutba daal dafa xaw a euh, ëpp tuuti. ngay waaw waaw xam nga lislaam est contre tout excès nit ki mën nga ko ñaax xaala laahu xaala rasulullah te nga yem ci xaala laahu xaala rasulullah leneen loo ci dugal rek dugal nga sa mbiru bakkan te loolu l'islam sant ko kenn ah am na ci kenn ci ñi nga tudda léegi koo xam ne dal na ci kaw tarixa yi te boo dalee ci kaw tarixa yi dal nga ci kaw kilifa diine yi nee na ñoom dañu nekk en déphasage contre les préceptes de l'islam te xam nga boo séentoo ci ñooñu ndimbal boo nekkee si jafe-jafe ka nga séentu ci moom ndimbal waroo tàmbali salaamaaleykum rek nga dal ci kaw erreur la kon nag l'islam ci boppam dafa contre tout excès de langage de comportement et cetera léegi nag état bi xeex bi mu jóg di fàggandiku pour terrorisme natt bu metti boobu bañ ñoo dal ñun ñu ngi koy ñaan na ci associer kilifa diine yi na ci associer les organisations islamiques ndax ñun dañu nekk dans ce milieu xam nañ lu état bi xamul nañu associé à la réflexion ndéem américains yi nga xam ne ñoom ak iranien yi daaw ñu jaaroo taal du ñu ngi nii tey toog bokk bokk benn taabal américains yi daan accuser iraniens yi naan vous êtes des terroristes kenn du leen may foo leen di développer le nucléaire Obama ci boppam mooy avocat Irak euh, Iran pour que euh, euh, communauté internationale bi may leen. Mhm. ñu développer la nucléaire mais le nucléaire civil. Mhm. loolu waxtaan na ko jur. Mhm. kon nag état bi na ko na ko lal ci waxtaan te ñu bañ ko teg ci violence. parce que am na intervention yoo xam ne dajji këru jàmbur. et cetera fitnaal seen i soxna. ba mujj gi nga gis ne la nga doon seet amu fa. amu fa affaire américain yooyu nañ ko teg fële yëfu américain la. nous hmm. sommes des sénégalais yàlla may nañu ay kilifa yu baax yoo xam ne suuxat nañu ci suñuy jikko ay mandarga yu rafet nañu sukkandikoo yooyu. gérer lii te incha allah yàlla dinañu ci dimbali ba lépp mujj si. gis nañ ñu gën ñu gën a fës ci ñu ñu teg loxo mooy ñaari imam yooyu ma ma ma tudd est-ce que loolu tegaat rek ci taabal bi question financement mosquée yi parce que wax nañ ci bataay mais est-ce que tamit financement mosquée yi du du loolu mooy tax ñi koy jiite noo nekk benn cible boo xamante ne dafa faal. ñooñu ñu teg loxo am na ci koo xam ne particulièrement imam ali Ndaw te ñu ngi koy ñaanal yàlla eh, eh, sang ko moom mooy le président de la ligue des et des oulémas tey ci suba te parce que nee nañu gis nañu ci euh, euh, téléphone am. mu doon jokkoo benn contact xaw ma message la xaw ma la nam ne jokkoo nag ka ñu jàppoon. fan yële paase. Mhm. ca Kolda. waa mais léegi bu fekkee yow ku la woo rek te fekk xëy na am na problème ak justice ñu bëgg la dugal dans le même sac que fu ñu jëm man mii di wax ak yow kii di fa euh, imaam Aliou Ndao di euh, imam euh, Dame Ndiaye parce que kooku mooy kilifa gu mag gi xam nga Ligue des imams et oulémas dafa nekk am ay représentation dans les quatorze régions oustaz Dame Ndiaye c' est le président national de la Ligue des imams et des oulémas du Sénégal woo naa ko tey ci suba kon man terroriste la woo naa ko di ko massalu ci nattu bi dal ci jawri ñoom boobu toogal ko Kaolack di imam Alioune Ndao alors donc fii Sénégal du États-Unis du feneen problème bu amee nañ ko gérer à la sénégalaise te bañ di toppandoo américains yi di dajji buntu jàmbur yi ba yàgg dem ba ci digg ba gis ne la nga doon seet amul nañ ko gérer ak dal. xeex terrorisme bi yow ànd nga ci waaye nañ ko. nañ ko euh, xeex terrorisme l'islam bëgg ko. nañ ko rafetal intolérance l'islam bëgg ko. Mhm. tuur ay deretu ay innocent l'islam bëgg ko. di bunta xatal nit ki ndax bokkul ak yow diine dafa safaanoo avec les préceptes coraniques yàlla moo wax ci sóoratul baqara laa iqra diin. sey Seydina Mohamed tam daf ko daan jëfee cet esprit de tolérance la wax naa la ko sànq ci na mu daan def après ses victoires les anciens prisonniers de guerre nee na bu leen kenn toroxal bu leen kenn métital nañ leen jox ñu lekk ba suur naan ba màndi nañuy fay impôt nag comme ñëpp pour que la ñu dajale ñu ñu mën ko jël di ko liggéey réew mu baax. financement kon nag bu ko defee nag comme que euh, état dafay fàggandiku ñun ànd nañu cent pour cent ci loolu parce que wolof dafa wax ni ko balaa ngaa lakkale. ba mesure bi état bi jëloon weer yële passé ne ku fi bëggati tabax jàkk wala école wala leneen te fekk sur financement extérieur la état bi sas na la nga ñëw def déclaration ñu saytu ko xool fu xaalis bi jógee c'est normal man fi may waxee yow ñun Jamra nous avons un projet de construction d'un centre de santé niveau un bu mag mais bu ñu boucler négociation bi ak ñuy négocier du ma du ñu xaar ku ñu woo de Imam Massamba dana foog dossier yi waaxu ak tànkam dem ba ci ministre de l'intérieur déposer lépp ne ko lii lañ fi bëgg a tabax amuñu capacité amuñu dooleem ñii ñoo ko fi bëgg tabax may ko état du Sénégal loolu mooy transparence mhm. kon nag ñii bañ ñu leen contrôler boo bañee lu la contrôler xanaa da nga am loo reproché sa bopp voilà kon nag ñu dul dellu ñaan rek mhm. ñu ànd ak dal ànd ak teey te ñu moytu roy dàq lii yàlla mën na def ñu mën ko gérer ñu mën ko dékku mais encore une fois na état bi di wax ak kilifa diine yi na état bi di wax ak dégg nga euh, organisation islamique yi parce que comme ni ko Kocc Barma di waxee euh, mennam xel doyul. <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah Mame Matar Gueye vice président bu ONG Jamra ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu doon waxtaanee wàllu terrorisme fii ci Sénégal ak ñi nga xamante ne teg nañ leen loxo fan yi ñu génn dégg ngeen euh, li mu wax dañuy xuus nag ci xibaar yi ci ponk bu mujj bi sax daanaka ci la ñu yegg si di li ci yéenekaay yi ñu ànd ceek Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf l'observateur xëy na sol tëneem teg ci dalli batam soppaliku technicien de surface di lijjanti mbalit meeg jëfi yuqu njuwri ci am mu ay njun jaac bi leen journal bi ab taxaw seetlu la yéenekaay bi xëy tey ji ci wàllu mbalit mi ak ni ñu koy doxalee juróomi at yi ñu génn mu di 2000 ba 2015 yëf yi bari na ay tappale maanaam ay mafia ni ci jamonoy Aprodac ba ci entente ka Dakar gi ñu fi jëlee bërki Dembo Njaay mbirum mbalit mi yéenekaay bi nañu munta sempal ci réew mi xaalis bu bari moo cay dem dem sax bay jur léeg-léeg ay bëjoo ci diggante pouvoir central bi mu di nguur gi ak collectivité locale yi nguurug Abdoulaye Wade ba ci nguurug Macky Sall journal bi nañu amu ci kenn ci ñoom koo xam ne bëgg nga jël xaalis bu ne toll di ko jox ko bokk lu jëm waay ci wàllu politique observateur nañu entente ka Dakar gi ñu sànni ci sën ba bu yàggul jële ci moom mbiru mbalit mi jox ko waa UCG firnde ci ndax bari nañu jàpp ne loole politique moo ci laxasoo ceex na loo mi ne woon jamono ministre environnement ne ci journal bi dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg a ci mbalit mi ceer tegal ñu ci ne am nay dawalkati yoo xam ne ngir bëgg seen camion 10 ba bu ñu leen fayee mu na dañuy jël ay xeer maanaam ay garab Karawa dugal ko ci camion yi ngir bu ñu peesee camion ya diis bu ñu leen fayee mu mën a duun Mamadou Fall Ndiaye contrôleur ci Entente Ka Dakar ne waa l'Observateur ak bulletin peesé bu baaxul borom camion bi mën naa dem bay am bés bu nekk ñaar fukki junni yu manqué ñaar ñaar ñu bokk parti ñoo xëy bokk xët mu njëkk réew mi quotidien mu di Khalifa Sall maire bu Ndakaaru président Entente Ka Dakar ak Ousmane Tanor Dieng njiital parti socialiste yéen kaay bi nañu ba léegi coowal Entente Ka Dakar Khalifa Sall Abdoulaye Diouf Sarr coow ba léegi kenn dégg gu ci Ousmane Tanor Dieng Tanor a mu selang lu ci coowal mbalit mi non assistance à Khalifa en danger direct info nañu ko yaakaar ne am Khalifa Sall jàppal Macky Sall téyel mairim Dakar yaa ngi nax sa bopp xëccoo faaw mu am ci mairim Dakar ci diggante Khalifa Sall ak Macky Sall loolee direct info nañu loolee dara du ko dindi te nag ni ñu doxalee Khalifa Sall ci mbirum mbalit mi moo gën a leeral yëf yi wal fajir nañu moom Macky Sall na wàcc waa Parti démocratique Sénégal ñoo ngi jëm ci kawam teg nañu seeni plan li ñu fas indi leen seen manifester boo xam ne nee nañu soxlawuñ ci autorisation ñu jox ko ñu leen ko jox la ñu ci yemale Omar Sarr mi coordonnateur parti démocratique Sénégal ay kàddum ci xët mu njëkk journal bii di Walf Fadjri mu ne ñu fa suñu yoon nekkul ci policier les policiers on s'en fout ay dem boo jël kàddu gi ci xët mu njëkk journal bi nañu fa Modou Diagne Fada bu nangoo Macky Sall di ko ngemb ak di ko jal ci kaw bàyyam Abdoulaye Wade tey la ne man ay dëmbooj maa ngi fàttaliku bés bi Modou Diagne Fada ñëwee sama kër ak i ronxañam nan ma lu tax ñu jël Macky Sall di ko def ministre d'État te man li ma def ci parti bi Macky Sall defu ko grand place nañu li waa PDS mënatut a toog di seetaan moo di di xool Modou Diagne Lamine Fodé di am seen kaw ndam lu mu am bañ ne noonu la rek mu jàllee ci leneen yéenekaay bi nañu lii moo waral PDS gu yàgg gi ñu xamoon ci defante PDS googee la gars yi bëgg a ñu xiwaat Sud du Quotidien nañu ngir jiite groupe parlementaire libéral ak démocratique ci assemblée nationale waa parti démocratique Sénégal nee nañu du ñu bàyyi du ñu seral du ñu yoromal dana mel ni ngénteel noo xóor ku jekku sa morom rek jàppal yàppal la tribune nañu ñaare ngi ñoo xam ne léegi tey gars yi sàkk leen pexe mu di Awa Diop ak député bii di Fatou Thiam ne ginnaaw bi ñu dàqee Modou Diagne Fada ci biir parti démocratique Sénégal ba noppi léegi ñoom ñaar ñoo cay topp commission discipline bu parti bi yéen a kaay bi nañu Abdoulaye Wade rek la ñuy déglu am na daje bu rëy bu ñu nar a amal ñoom gaañu suba populaire ne ñook opposition bi ñoo koy bokk mu di cadre de concertation de l'opposition cinq heures ci ngoon lay doon ca siège PDS njiital PDS ak njiital groupe parlementaire libéral ak démocratique ci la Sénégal mu di Abdoulaye Wade ak Modou Diagne Fada journal bi nañu ab leetar buy wax ba mel ne xeme moom la Modou Diagne Fada bind Abdoulaye waaye ñoom waa parti démocratique Sénégal bu mu tee ñu xam ne yàlla baax nekkoon tey kon député bi dina wal meeru Bambey bi ba mu mokk ne ab kurpañ la ko dóor tip Bougazeli xol ba jeex mu jug xataraayu moom it ak kurpañam riir wutali Aïda Mbodj gaañee ko téye ne budul woon loolu observateur ne nañu Aïda Mbodj du ko nettali tey tey ma jàll ak yéen ci wàllu tàgga jaram ak stade yéene kaay mi dikk ak ñun ci maxub Sénégal ak Madagascar liste bag la mu ca xam Bakary Cissé Kappo bu yéenekaay bi nañu liste boobee li ñu ci mën a jàpp moo di Stéphane Badji dana ca bokk Pape Alioune Ndiaye dana ca bokkaat ne ñoom ñaar ñëpp jot nañu seeni convocation ki ñuy convoqué muy ñëw rekk te gëj a doxal di baaba maanaam Moussa Konaté stade yéenekaay nañu daapaan ndax juróom-ñaari max ngi yoo xam ne Moussa Konaté taalul caax yi sourde sport ne ko booba maam Biram Diouf a ngi jooy ne moom it gëj naa def lu ñu xam yéenekaay bi mel ne ku koy avertir moom maam Biram Diouf ndax ma nga naan ko ca maam yeewul mi ngi naaj